عونك يا مهين في الأبيات يلا نبور دفل هذا الحاجات عونك يا مهين في الأبيات يلا نبور دفل هذا الحاجات أصحاب الجنة تهم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خدمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام وسلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سينسات أنت النبي والرسول والخمام بك انقياد سالخين بسمام لك لدى ربي ورا كل مرام لك به يا سيدي أخنا استرام سيدي خير الأنام نويت سكره عليك كل حام وكل سهران والكتاب لدهم نويت سكره عليك بالخلام وخير حياة جوامع الكلام حديث خذ كلاما بلا انشرام آه قائدا لمن لايك الملام تطالر بسافرا بسنسام لك وقبل خبوت بسام تطالر بسافرا بسنسام الوجوب الهدام تتلى ربي سائرا بس نسام لك وقبل خبوت بلسام صدقم سانا إلهي بالمناجات وابدا لخنا يدي أنخاتي دل علي الحلماء والأولياء من لا يزال قوتي والخول خسيدتي فاخر خسائد الكرام ولي تقعد أبدا غير المرم هديتي مخجلة كل ملك كان مناسخا وصاو الملك مها تواجها نسار الله lii yabbi laa ilaaha illallah fal njaga laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah la ilaha illa Allah wala ilaha illa Allah ni ñu màggal Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fallo yow biir géejoo ba ca ko ci woo faal mu wuyoo lamp faal baabul muridin jam ñi yaa di jinde lamp faal baabul muridino jam yaa leen di jinde lamp faal baabul muridin jam yaa leen di jinde jërëjëf on ngi jéggalu bu baax di ñaan ci lépp lu ñu barkeelu rek yàlla na dajeeg ngërmalu Sëñ Tuubaa xam nga yàlla dafa dogal ne comme jàngkat yi man maa leen mujjee jàng te ñoom ñëpp amoon nañu yéene yëkkati seen kàddu siyaaree ko sëñ bi bu nu sañoon bu nu jàngee ba pare dañuy siyaar sëñ bi waaye comme maa leen mujjee jàng man maa leen koy defal waaye sëriñ bi Mbàkke Balla ñun jànkatoo xasaay yi di jot jàng yëpp ñoo lay nuyu te di la siyaar di ñaan yàlla guddal sa fan te wéral la ci barke Seexul Xaddiim ngi siyaar mbooleem sunu bàyyi yi fi nekk ak sunu sang yi fi nekk yëpp yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla wéral leen ci barke Seexul Xaddiim